Mamadou Lamine Dianté maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Awa. très bien yow yaay euh, coordonnateur u euh, LACOS mais LACOS boobu ci boppam lan moo ko tax juddu. LACOS li ko tax juddu moom mooy que ne dañoo gis ne bi ñu ubbee ci direction général bi campagne retrait des fichiers des fiches de parrainage. kenn ci sénégalais yi ci lu ëpp ñaari téeméer ak juróom-benn fukk nit yoo xam ne dem nañ ci euh, direction générale des élections ku tudd Ousmane Sonko lañu ñu euh, tere jot ay fiche de parrainage am euh, ñu jàpp ne moom sénégalais la comme ñëpp. deux mille dix neuf jaaroon na fi am na ay sénégalais yoo xam ne mosuñoo jot a bindu mais jot na jox na leen ay fiche de parrainage mais que bi yoon Ousmane Sonko la ñu seppi ci nit ñi ne ko duñ ko jox ay fiche de parrainage ñu jàpp ne loolu du dégg du yoon bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak moom ci langue politique bi booba léegi euh, moo xam ñu bokk ci euh, coalition Yewwi Askan Wi ak moom la bi nga xam ne donc coalition électorale la moo xam également ñeneen ñoo xam ne duñu ay bokkuñu coalition Yewwi Askan Wi mais bëgg nañu jàppale Ousmane Sonko ndax mu jot ay fiches de parrainage am ñu daal di waxtaan suñu biir ñu samp kuréel bu ñuy tuddee leader yu euh, farok candidat Ousmane Sonko mu tudd donc leader allié euh, du candidat Ousmane Sonko ci nasaraan ñu tuddee ko donc LACOS moo tax nag LACOS juddu mu euh, am benn mission mission bi mooy nan la ñuy fexee ba Ousmane Sonko wara a a bokk ci fiche ci élection présidentielle bu vingt cinq février deux mille vingt te loolu dafay jaar ci ñu. jox mandataire am ay fiche de parrainage am comme ça moom également mu bokk ci parrainage bi euh, comme euh, ñeneen ñi ci des. très bien alors mais lan mooy mbébétu euh, lakkoos di booloo ak yeewi askan wi. waa xam nga Yewwi Askan Wi kuréel la boo xam ne euh, Ousmane Sonko bokk na ci ñi ko samp mu doon kuréel boo xam ne euh, dañoo ànd di euh, opposé wu ci fan yëpp moom mooy opposition globale mais rawatina également mu nekk opposition boo xam ne dafay jaar ci élection yi nga xam ne am nañ fi pour que ñu am changement véritable en vingt quatre ndaxte ci janvier deux vingt deux Euh, ànd nañu pour def élection locale pour ñu xool euh, ci euh, gox-goxaan yi am le maximum de ci bokk moomeel yi ñu am ci loo xam ne ñoom moo moo ci ëpp ci lim ñu gis ne loolu nekk na expérience bu bu baax a baax ñaareel bi euh, bi ñëwee ci juillet deux mille vingt deux ñu ne nañu ànd bokk bo euh, bokk euh, ay liste moo xam ci gox-goxaan yi la département yi wala ci niveau national pour que ñu wut la majorité à l' nationale maanaam ñu ëpp ay député ci assemblée nationale yoo xam ne ñoom benn ak Yewwi Askan Wi lañu bokk ñu gis également taxawaay bi nga xam ne nguur yi am na ko pour gàllankoor loolu malgré tout askan wi jox nañu lu toll ci quatre-vingts députés parce que dañoo ànd ak intercoalition yooyu wàllu léegi nag euh, bi ñëwee ci élection présidentielle dañoo ne comme élection présidentielle daanaka li tubaab di naan rendez-vous euh, d'un homme avec son peuple la donc ku ki nekk am nga sañ-sañ bu la neexee nga nekk candidat à l' élection présidentielle ndaxte également xam nañ ne bu ñu nee élection présidentielle bu ñu jëm premier premier tour bu nekk da ngay jéem a fal koo xam ne moom nga tànn donc euh, mais bu deuxième tour amee nag bu boobaa ñu ànd soutenir le candidat boo xam ne moom moo dem ci deuxième tour bi donc mm-hmm. Yewwi Askan Wi mu ngi taxaw boobu léegi également pour fexe pour que Ousmane Sonko mën a jot ay fiche de parrainage am mais comme ni ma ko waxee am na ay leaders yoo xam ne mosuñoo bokk Yewwi Askan Wi waaye ñoo euh, ñu ñu ànd ak Ousmane Sonko la depuis euh, ci élection présidentielle 2019 ñu jàpp ne donc ñun ñi nga xam ne ñoo ngi far ak moom euh, bokk ci yeeyu askan wi dañuy euh, waxtaan ak ñeneen ñoo xam ne euh, défendre candidature Ousmane Sonko seen yitte la ñu booloo créer luy tuddee LACOS donc c'est-à-dire que samp bi ñu samp LACOS tekkiwul ne yeeyu askan wi ànduti àndul ak loolu mais yeeyu askan wi également dina ànd ak loolu la preuve c'est que démb alxamis jot nañu euh, amal benn euh, conférence de presse conjointe li jëm ci euh, taxawaay bu ñu war a am ci le 17 novembre 2023 mooy tey jii. très bien alors mais dañuy waxtaan waxtaanee surtout ci li jëm ci quatre personnalités yi nga xamante ne daanaka ñoo ngi ñaawlu état de droit fii ci Sénégal situation politique bi ak ni muy doxalee loolee ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bi ma ci am rek moom mooy que ne finalement da ngay naan mais euh, lan moo dal Sénégal lan moo dal Sénégal bi nga xam ne euh, euh, président Léopold Sédar Senghor taxawoon na fi xeex pour que Sénégal nekk nation maanaam mu bañ a am. féewalee ci diggante sénégalais yi euh, mu nekk nation boo xam ne ku nekk da nga gis sa bopp quel que soit ethnie waaso bi nga bokk wala euh, diine bu nga bokk euh, Abdou Diouf ñëw fii tabax fii administration boo xam ne ñëpp naw nañu àdduna bi yëpp naw na Sénégal ci administration boobu Abdoulaye nag nekk koo xam ne xeex na fi pour que démocratie sax fi xeex na fi pour que état de droit sax fi mais tey jii ñu gis ne donc ak régime bi nekk fii depuis deux mille deux mille daanaka. Euh, kenn xàmmeetul Sénégal boobu ba tax na boo tukki woon sax boo lu ñëwaatee da nga yaakaar ne xëy na eggagoo Sénégal benn réew nga nekk ñu jàpp ne donc tey jii lu ëpp ci lu toll ci euh, quatre-vingt-quatre personnalités maanaam euh, juróom-ñetti fukk ak ñeenti personnalité moo xam ay acteurs politiques lañu moo xam ay anciens premiers ministres lañu moo xam ay universitaires lañu moo xam ay hommes d'affaires lañu bu ñooñ ñëpp àndoo àndee bind benn bataaxal naan fan la état de droit toll tey ci biir Sénégal cela veut dire que yëf yi jéggi na dayoo te ñoom également li ñu leen ci euh, jaajëfal mooy dañoo woote pour ñëpp takku am taxawaay pour que ñu xeex pour que Sénégal mën nekkaat ci euh, réew démocratie nekkaat réew démocratie nekkaat état de droit ñu jàpp ne donc euh, loolu weesu na. Euh, acteurs politiques yi ñu yi ñu doon weesu na également euh, organisation de la société civile lu mu doon mais bépp sénégalais war nga mën a taxaw pour que ñu fexe mm, tabaxaat Euh, Sénégal démocratie ak état droit boo xam ne moo fi nekkoon te moo fi mës a nekk avant 2012 de sorte que tey jii dañ leen di gërëm ci loolu mais dafay interpeller au-delà des acteurs politiques bépp sénégalais pour que ñu xam ne yëf yi fu ñu toll tey jéggi na dayoo et bu ñu taxawul bu ñu moytuwul bu subaa suñu doom wala suñuy sët bu ñu ñëwee nañ fi fekk loo xam ne du lu sénégalais Sénégal bu ñu bëggoon bàyyil bu ñu leen bëggoon bàyyil. Mhm. alors ci 17 euh, novembre bi nag mu que cour euh, suprême nan rek jàngat li jëm ci décision euh, juge Faye loolee euh, yow ban lan nga ciy xaar parce que yaa ngi wax sax ne askan wi daañu ànd ak Sonko. waaw mais xam nga xam nga d'abord damay rappeler benn affaire boo xam ne ci sama gis-gis lu am solo la mm-hmm. lan la cour suprême di def tey bésu ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre deux mille Euh, dafa am benn sénégalais bu tudd Ousmane Sonko. bi nga xam ne bu mu buggee bokk ci élection yi mu dem direction mu yónnee direction générale des élections ñu ne ko yow duñu la jox fiche de parrainage mun ñu ne mun ñu laajte lu tax ñu ne parce que son Sonko dañ ko jëlee ci fichier électoral bi. tey ñëpp xam nañ ne deux mille dix neuf bi élection présidentielle amee am na ci benn sénégalais boo xam ne jotuloon bindu ci liste électorale bi mais ba mu demee fiche euh, jëli fiche am euh, direction générale des élections jot nañoo jox waa jooju ay fiche de parrainage ba mu collecté ay parrainage mm. bi yoon nag ñu ne koo xam ne dafa bindu woon ñu génnee ko ci lu teguwul ci yoon parce que adversaire politique am bu nekkoon ministre de la justice moo yónnee pour ñu jëlee ko foofu xoolu ñu lan la décision boobu euh, ëmb ñu daal di génne Ousmane Sonko sans pour autant ñu yëgal ko loolu ba keroog bu mu yónnee pour mu jël euh, fiche de parrainage lañ ko ne yow dina jox fiche de parrainage parce que jëlee nañ la ci fichier électoral loolu bu mu ko déggee mu gëstu xam ne yoon da koo may mu dem foo xam ne fa la woon Euh, avant ñu koy génne ci fichier électoral bi bu fa fekkee euh, euh, ëttu àttekaay mu dugal foofu recours ne man kat dañ ma jëlee ci fichier électoral bi te bëgg naa nga àtte ma sama diggante ak état du Sénégal mu ñu gis ne état du Sénégal dafa mobiliser lu tollu fukki avocat fayal leen fay leen fayal leen billet avion ak euh, euh, euh, hôtel yóbbu leen Ziguinchor pour ñu jëm taxaw défendre li tax ñoom ñu def ñu génne Ousmane Sonko ci fiche de parrainage yàlla def juge bu fa nekk ci axulaay taalam mu atte ne jëlee bu ñu génnee bu ñu génnee Ousmane Sonko ci fichier électoral bi teguwul ci yoon donc moom da koy annulé ñaareel bi mu joxe dogal pour que ñu nekk administration euh, service compétent euh, du ministère de l'intérieur ñu dugalaat Ousmane Sonko ci fichier électoral mu nekk électeur comme ñëpp loolu ñu jàpp de yoon la pour que bépp sénégalais boo xam ne dañ la jëlee ci fichier électoral nga am sañ dem fu mbaxane doonee benn nga nga euh, clamé foofu bu la joxee dëgg ñu dugalaat la ci fichier électoral bi mm-hmm. waaye ñu gis ne état d'accordul ci ñu dugalaat citoyen ci fichier électoral moo tax mu def recours pour que euh, cour suprême annuler loolu pour que Ousmane Sonko bañ a nekk citoyen électeur bañ a nekk candidat ñu jàpp ne loolu guléet la ci euh, histoire ci taarixu démocratie sénégalaise. très bien et nan nga gisee yi tamit ñu euh, ne donc ñun li ñu war a def en tant que LACOS. moom mooy woote manifestation pacifique comme acte politique pour que ñëpp mun a génn Sénégal euh, ci bos boobu wane ñun ñooy sénégalais yi nga xam ne dañoo ànd ak candidature Ousmane Sonko xamal nguur gi fi nekk ne euh, lu muy doxalee ak Ousmane Sonko sénégalais yi ànduñu ci euh, bunduxataal muy bunduxataal Ousmane ci euh, te sénégalais taxaw nañu pour que mu arrêté pexe yoo xam ne mu koy def pour gàllankoor candidature Ousmane Sonko te mu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk effectivement ci élection présidentielle le 25 février 2024. très bien nan nga gisee tamit tournée économique bi nga xam te ne moom la njiitu réew di def. waaw mais xam nga yu bëri wala mun naa wax sax sax ñu ëpp ci Sénégalais yi dañu jàpp ne loolu lii di tournée ndaxte euh, mënoo fi nekk pendant fukki at fukki at fukki at ak ñaar euh, defoo fi loo xam ne euh, tey jii ñooñu mun nañ cee teg seen loxo nga ne da ngay xaar ba mu desal ñetti weer wala ñeenti weer ne da def tournée économique ànd ci koo xam ne moom nga tàbb nga def ko candidat parce que yoo xam nga ne yoon mayu la pour nga nekk candidat léegi nag nga koy yóbbu parce que sénégalais xamuñu ko mais nga mun koo présenter sénégalais yi ne man kat pare naa fi waaye bu may dem kii laa campagne électorale déguisée la ci waxtu woowu nag képp koo xam ne da nga bokk ci opposition véritablement maanaam musoo euh, lëkkaloog ak Macky Sall wala musoo bokk ci dialogue boo xam ne woote woon na ko fi te jubluwul ci leneen lu dul ñu fexe ba tere Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle 2024 euh, ñooñu bu ñu jógee ne dañuy def tournée nga nga nga gàllankoor loolu mais nag yow nga mbubboo euh, président de la République sa candidat mbubboo premier ministre ngeen ne da ay tournée économique tournée économique yooyu euh, dara du ci économique lu ci euh, lu ci euh, lu ci tournée bi moom mooy politique parce que xam nañ ne ay euh, ay hôpitaux wala ay ay sphère administrative yoo xam ne nga ne da nga koy da koy inauguré mënoon nga ko inauguré wala nga bàyyi préfet bi wala gouverneur bi inauguré ko bu ko defee ni ñu mën a jël possession donc de ces infrastructures là mais tey jii ñu jàpp ne tournée bi boo xoolee moo ngi ànd ak ay ministres am mu ngi ànd ak ay directeurs généraux yi nga xam ne ñoom ñooy def mobilisation import export maanaam di jël nit ñi fépp ci biir Sénégal dugal leen ci oto fay leen euh, seen euh, séjour yi foofu euh, ci alalu réew mi nga ne da ngay def tournée économique ñu jàpp ne donc loolu ay caaxaan la du dara lu dul campagne déguisée pour que mu mun a xamal Sénégalais yi ne kii mooy sama du ñu ko xamuloon ñu xam ne kii mooy candidat Macky Sall waaye nag ñuy xaar ba ci cappaandaw gi parce que en réalité Sénégalais lu ñu bëgg du continuité parce que sonn nañu lott nañu lu ñu bëgg rek moom mooy indi changement te changement boobu Ousmane Sonko rek moo ko mën a incarné. Mamadou Lamine Dianté euh, jërëjëf euh, may fàttali rek ne yow yaay coordonnateur u LACOS ñu ngi lay jaajëfal bu baax.